bi ma ñëwee nag teg la bi ma ñëwee teg la dil tëgg la mbot dóor la ba toog sa kaw fotow ba kaatare ko ñu bëggaat la nangul naa la loolu dañuy bég oh. mais bég googu ñuy bég jàppal ne deux jours trois jours dañuy ñëwaat ci man ne ma aadama doo nit loolu tamit téye ko non non man man foo ñëwee maa lay pareel aadama waaw téye loolu rek non dama ne dama ne te instant lépp calme dama lay jox ay détails rek pour nga téye xam ne hmm. Adama moo nekk nit koo xamante ni crédibilité ci internet bi ak ni mu mel. ci internet bi crédibilité la ñuy wax eh, waxal crédibilité waxal ma dégg. crédibilité waaw noonu. la ma jox la rek benn exemple pour nga xam ko. Mm-hmm. pour ma wax la loo xamante si nii maanaam pour ma wax la ne la Sénégal maa ko téye man nii nga dégg. Cheikh Ahmed su ma neexoon ba ngay xulloog Kaliphone di xulloog man wala coow li ni muy bari bari bari bari nii yéen ñëpp mën naa leen boole fay. damay jël sama téléphone xëcc ko ubbi dossier yi xool ki ma ci neex ki ci gën a siiw kin ci gën a ràññee lan la def fan la ko defee kii ak kii ak kii ma denc ko sama téléphone annonce bande bi ne ko raj ñuy waxtaanee kooku ñëpp la di fàtte ci yéen mais defuma ko dama bëgg coow li saf. Adamo. kon suba suba bu jeex. li nga wax ni li nga wax ni mën naa la ci rey léegi léegi su ma neexee. ma communiqué ci léegi nga dee. Ah. waaw dégg wax laa wax mais dama ne la li ma la wax laa ndax dégg ko. Adamo. waaw non dama dañuy waa ca laa nekk. Ah. dama ne li nga wax léegi ko léegi. xaaral dama ne li nga wax léegi tama dégg ko léegi. bu ma ci communiqué léegi nga dee bu la neexee ma wax nga dee bu la neexee ma noppi. communiqué ci après dama ne la. ok après baax. man waaw waaw dama ne waaw dama ne la man Adamo su ma neexoon wax ji jeex parce que damay ñëw génn feneen Sénégalais yi dañuy fàttali loola la ñuy waxtaane ndax yàlla may na ma ko te maa moom loolu laa la wax man li ma wax nangul ma ko wala da nga bëgg a wax yàlla mayu ma loolu su ma nee dama ne kenn du déglu. waxewuma foofu rek dama ne li nga wax ah, léegi. bu bu la neexee ma communiquer ci léegi. Hmm. ba nga defee sa vidéo annonce. danga ne dinaa ñëw ci diggante Adamo ak ki nga xamante si nii moom moo Iliman Lam ak audio yi am benn point waxaat ne mbiru dooro ah di am loo ci leeral Farba ak ñeneen ak ñeneen léegi nga taal sa live nag nit ñëpp ñëw nga ne Iliman Lam sama xarit la xamalu ko ko lu bon ah. sama waay la dem na ci màkk nga teg sama loxo ma teg sa loxo mu ne ma sama frère nga ma ne ko jàppee naa la rak jàppee naa la frère léegi point bi may la laaj mooy lan moo waral changement boobu mu mu wute ak yow annonce bi nga defoon ne tudd ci Ilimane Lam tudd ci ay audio loolu mooy premier point deuxième point mbiru dooro lu tax nga ñëw ba ci lay Adamo question wala point deuxième question wala deuxième point waaw waaw deuxième question ok mbiru Doro am na ñuy def école ngir yàlla mbiru dooro tegee nga ko à côté parce que dooro woona la waxtaan ngeen yéen seq ngeen coloré encaissé nga def nga nangam bàyyi nga mu sedd léegi nag dama bëgg nga jëwal ma ci ñaari point yooyu lan moo waral changement discours yooyu ok su dee xam nga communication dafa am teaser am film li ngay gis ci teaser bi doo koy gis ci film bi pour wan la ne lii mooy ñëw man dama la doon jekkali si mu óor ma ne da ngay dee tey ma attirer attention ñi ma war a déglu te dama gañe loolu am huit millions zem nangam jama dix-sept mille vie toog di seetaan àdduna yëpp dagg ko ñëpp yëg ko mel ni élection am ci réew mi ndam lu mel noonu nag boo ca jubloo dangay ngay def teaser bu garaaw teaser boobu li ma yëngal man xam naa ko maanaam fi ma ñoppati dal na ma ñëw parce que waxuma damay xas ilimaan laam waxuma dama koy saag dama ne ilimaan laam ko la mu ngi ci bi dama ñëw ne suma xarit la suma mag la Farba Ngom non da nga ne digganteem ak Adamo waxoo loolu de man kay lépp moom la déet man wax suma wax dama la bëgg a wan ne ah, t-shirt dafa am film am damaa mën li may def waa léegi dooro waral changement discours bi maa maa ngi cay ñëw Adamo soo ma laajee hmm. nag doo ma waaw bisimilah maanaam ma leeralal la ne. Tisseur day am film am man dama man communication mu leer ma ne ki doon bàkkoo boos de nigri ne moom moom internet bi <coughs> moom laay ñëw tër rendee ko ginnaaw. ni xam bi moom kenn mënu ma cee mën internet bi loolu mënta ne internet bi moom. fu mu koy téye rek patience tuuti rek ma tontu merci. comme papa doom la da ngay am yar ak doom nag sa baay ngay wax. léegi bisimilah t-shirt bi laa defar noonu mu saf sap nit ñi di xaar lan laay wax ba tardeel live bi 19h laa joxe rendez bi pousse ko ba 20h kenn toogatul stratégie de communication la muy benn ñaareel ba mun naa laa wax ne déglu lu baax mën naa laa wax ne jokkoo ak dooro fekk ñu jokkoo fekk jokkowuñu mais wax jooju buy dëgg la man lay engagé bu dul dëgg man lay engagé. Mm-hmm. man nag dama yëkkati sama téléphone enregistré affaire bi yónnee yëpp contact direct mu ne mu dëgg c'est faux. waa léegi yonantu bi mu jógee ko ci yonantu yàlla Ibrahima gisee ak yàlla ca. gàddaay ga. daf ko laaj gis nga yàlla mu ne ko déedéet Ibnu Abbas laaj ko mu ne ko gis naa ko. Hmm. Aliou na ko lu tax nga joxe ñaari réponse mu ne kii fii la toll. boo ko waxoon waaw day compliqué. këlee am na ma xam a comprendre Doro dafa xam ne. bu la ko waxoon ne ni nga ko waxee ci live bi nga koy waxee mu ne la déedéet fas kanamam mag la te dafa jógee ci defeet nag. waaw non non mais li mu wax noonu non non. dooro defet <laughs> mais yow laa yow lan moo tax maanaam. waa lan moo tax ngay wax ci nit ñi. loo xamante si nii maanaam amul daal man loolu moo ma def kaa quoi. aada waaw mu ngi may leen ma may leen ma wuy sama ndey may leen ma. yéen may leen ma ma Adamo baay doom la maanaam Adamo répétal question bi ma tontu. li tax. Uh-huh. ngay jekk-jekk toog. comme uh-huh. exemple ci Mia Guissé wala keneen ak keneen wax loo xamante si nii leeru la te xamoo si dara lekk da ngay cuq pour sénégalais yi topp la nga mën a jaay say koddal te ci taabal ji. non non non man suma hmm. koddal. parce que fii ñun danoo am ay kilifa nag. kuy ma neex na lool mais dafa am nit ñoo xamante si nii moom kenn mënut a tax ci àdduna ba nu ñàkk leen ndax kooku du baax du doon arrangement kenn. man laa <laughs> wax. kon léegi kon léegi aada bàyyi na léegi kon coow di jeex. léegi aada ah. may dégg. waaw non Mbaye nee na déglu may ma tudd Adama. waaw. li nga wax dëgg naa ko mais dama lay may benn liberté. yow de man amoo liberté booy maye man danu may woo yow amoo liberté. non non <laughs> man may xam nga Cheikh Ahmed déglu ma wax la benn affaire da nga xamul benn affaire yow. wax déggoo ko sa ñàkk tey la daane. soo ko déglu ba a wax. ñëwal ñëwal ñëwal. waaw waaw teelu tuuti rek dama ne. li nga wax dégg naa ko mais dama lay may benn liberté mooy. comme sa purux gi dafa rëy ba mënta wanaa su defet saa yu la neexee ak moment bu mu baaxee lépp loo am ci man ak ni ko bëggee rek may naa la liberté nga teg ko ci table bi ci sa heure bu la neex yow man je toujours pare bi ma lay pareel ñeenti at la ci ginnaaw ma xam ne yàgg-yàgg dineen daje so léegi dama la bëgg a wan ne kilifa yi déggal nga leen dëgg la man soo ma laalu duma la laal boo ma tafut duma wax ci yow duma wax say hmm. nit mais bés boo paree aadamoo muy suba muy ngoon loo xam ci man ak suma famille waxtu boo ko bëggee tegal ci taabul bi may naa la loolu man léegi mën naa yëkkatiwaat kàddu mais nag soo ma bàyyee ma bala soo ma waxut duma la wax mën naa yëkkatiwaat kàddu yëkkatiwaatal kàddu ci suma ndigal aja léegi nag li may résumé di ko résumé mooy Cheikh Ahmed dama bëgg benn affaire maanaam mu leer yow yàlla dafa def xam naa nag waa live bi mën nga wax ñu jàppee ko neneen yàlla dafa nga def nga am ay nit yoo xam ne nii xam nga leen mais man tamit dama leen a xam ay nit ñu bari ñu nekk sa xarit mais tamit nekk sama waay Cheikh Ahmed nit ñu lay woowe ñooñu noonu lan may woowe kenn rek laa ci lim de di ko tudd booba tey mais des na lu bëri léegi nag ñooñu ñëpp ku nekk jot naa sa appel te dégg naa sa version. ñu ci bëri sax maa doon wax naan non non damay appuyer damay comprendre nga. après ñu woote waat woote ma toog xool nag ma ah ñii kat néeg néeg lii xew na fi defee nañ ko néeg néeg nii léeg-léeg lii xew na fi defee nañ ko néeg néeg nii ba appel bii ci mujj. mane amul benn problème garaawul lii xew xew na xam nga passé na amul problème naa focus ci leen mais yow waaw may ma ñëw rek may ma ñëw rek Cheikh Ahmed de yow mu xam nga kan nga war a remercier ci lii gel bi mais Cheikh Ahmed imaginel tey jii Adamo toog ak yow rek ngeen di waxtaan mu lay wax nga koy wax woowul kenn di laaj ay information yow woowoo kenn nan la combat bi di mujj man maa yëkkati sama téléphone woote mais bu doon mën a jaw rek man maa dof rek. <laughs> Adamo sa diggante ak yàlla Adamo yow sa diggante ak yàlla ñeme nga ma man ak yow ngay wax may wax Adamo yow. waaw te du am xoolal man ak yow kese kese ngay wax may wax ñuy toog wala bu ma defee live nga def live sans wuy ma sans ñu dem sax maanaam ay waaw eh, yónnee ma information ba lii di ma ci fekk. non dama lay laaj suñ la ne waxal looy wax. yow dañ koy teg ci xam non non dañ koy teg ci waxtaan. kaa day ñëw da ngay wax. non ça dem li nga xew ba dina. te ngi yow génn nga nga wax ci man développé man ma génn développé bu nu dajee ci waxtaan yow la nga développé woon ci la ñuy waxtaan man li ma développé ñu waxtaan. loolu suma objectif Adamo loolooy problème bi doo suma objectif. waaw mais. li ma li ma daaneel boole ko ci affaire yi te bokk ci mooy ba ma woowee sayraa man non pourtant nag bi dama ko woo ma woo cartel ne ko cartel ah. ci moom loolu ma nga bàyyi ko loolu ma sayra amul ñëw si scénario bi non bàyyil scénario bi man maa ngi ñëw wàcc suma jabar nee na naa wàcc live bi suma gel la moom lay waaj a takk te man moom rek lay topp damay wàcc lu ma digal lay def waaw dama ñëw ci loolu dina ñëw ci Adama waaw man ak yow lay wax waaw léegi loolu nga def noonu hmm. moo la jural defet bii waaw léegi li nga war a def mooy gëm yàlla ne kullu man alayha faan wa yabqa hmm. wajhu yàlla rek a daanu waaw duma neen ma Kaolack duma neen ma Kaolack tëj leen ma kaso xanaa du jëm raama man waaw. waaye maa la man mënoo ma de da nga maa jekku ci ci pièce boo xamante si nii ma ca daaneel sama bopp mais man kenn mënu maa mën ci internet bi. Cheikh Ahmed borom xam-xam nga de mais man tamit borom yi mbir laa de. xam nga Ilimane Lam barki démb non balaa coow li Ilimane Lam nee na la. moytul Cheikh Ahmed Cissé borom gàllaaj la dina la liggéey yàq sa xel bi. déedéet man non man nag liggéey du ma jàpp Cheikh Ahmed. waxuma dalay jàpp de. avertir na la waxuma dalay jàpp waxuma dama laa yàlla te ilimaan sama waay la ilimaan ilimaan bu la dee woo moom lu baax lay def ay kàddu yu baax dalay woo wax ci Cheikh Ahmed lu baax coupé woo la wax ma ay kàddu man daf ma teg foo xam ne tegu fa kenn loolu man xam naa ko te man leer na ma moo tax sànq ba ma nekkee hôpital may defar sama bëñ bi dafa woote ma ne docteur bi sama papa la ma wuyu ko wax ba mu pare tombeeg mu def ñaari kii ne ma pare na génnal ma génn doog ubbi sama micro doog lay wax kàddu yi pour nga dégg ko. léegi li ma kon léegi suma rakk nga. léegi yow suma rakk nga. léegi danga may def sa kilifa loo bëgg a dugg nga laaj ma ci internet ma lay jox xanaat déglu ma rek loolu mën na nekk de mën nga ma féete mag de mais dama ne la boo bëggee loolu nekk. non non dafa am ay nit ñoo xam ne déedéet déedéet. Eh, eh, eh, ah ah. ndànk yow dinañ la duma ngay teg condition da ngay def ndànk. déedéet non condition damay teg parce que man damaa. am nit non ko teg parce que amoo droit teg condition. déedéet déedéet damaa am nit kenn du laal sa nit. déedéet yow ku ko muté bàyyi leen loolu yéen tam. Eh, bu ko muté. waaw bu muté mi yaa gisee moom. non wuy ma mi yaa moom. nee nga ma tegal nga ko à côté dee na. non génn ci génnal ci mi yaa te du yow yaa tax ma teg ko à du yow de dama bëgg mu leer. dadul suma objectif. très bien man lool nag laa bëgg. dadul suma objectif déedéet waaw yow li nga bëgg taxul mu am déglul buñ buñ lekk wax ji neen ko ndànk ndànk. maa lay dama ne yow yow sa biir banque ci suuf amoo droit exiger yow da ngay ñaan njëkk su ma neexee ma may la bu ma neexee duma la may li ma lay proposé man déglu ma ma proposé la dama lay proposé nga ñëw bokk ci taalibe yi ma lay xelal di la digal nga xam ne dootoo. daal sama sëriñ yow demal nga wax lëf ak data nga xam ak jaay àndalaa buri tooyal bajo yi lem gu bees dugg ci loolu eh eh Adama suturaale sa bopp bu du toon bayra bajoor kenn du la xam ci <laughs> loolu nga xam de <laughs> déedéet bu yow bu du toon bayra bajoor doo toog fii bay am contrat di am nit ñi yow démb dama laa tëgg ba saayra ñëw quatorze mille personnes di seetaan mu jal ma publicité àndalaa buri bi gratuitement sa passe ma ne may bandi nag non saayra ma ko saayra ma barki Serigne Babacar Si c'est que fi ma ko tegoon quoi maanaam moo tax nit doomu aadama kenn mënu ko rek yow li ngay xamal nit ñi ñëpp ca ñeen ko jëlee fañ leen tegoon tax yàlla la fay sa bor rek ñëpp a yem waaw mais nag àdduna mu solo daal fu nekk nii mën naa la tegal benn condition nga rek régler nekk nit jël mbiri Cheikh Ahmed na le déedéet nga ñëw bokk ci taalibe laaj ma lay digal nga may laaj xalaat ma lay xalaatal nga xam ne doo daanu di nga xam fooy teg sa tànk lii moo la mën a jig jàmm am mais cas bi boo ci duggee dinaa dëbbu dëbbu dëbbu dëbbu ba nga ne kii du man génnal ci li nga ne man du ma sa morom te bañu ma la noonowu ma la yaa saaga su man day taf ma ma def la lii lii lépp tey sénégalais den lay ñeme fu mu nekk ni dootoo mën a wax boo indee tey cas duñ la gëm ñi naan la aada wi fii ñi naan la aada mongol xam nga lii neexuma parce que léegi bokk nga ci taalibe yi donc donc du ma neex léegi da ngay ñëwaat nag ma wan la nooy yëkkatiwaatee image bi ak noo ko war a defee sinon gars yi yëpp neen la ba pare de aadamo gars yi ñeme neen la de seex bi. xam nga ne yow booy wax saayra di wax ba di la saaga ndey nga xam ne ngeen mu neen saayra seex bi. waaw. fi ne kay aada dee na suur bi. non dama ne dama ne wuy ma kii tëj sama micro bi da ko naa la borom topp kaa maa ngi lay nuyu. Adamo ngi leen di nuyu damay pëtaxlu am pause. waa nag wuyu ma léegi damaa bëgg. coow li na jeex tubaarikàlla xew mi neex na. ote si tubaarikàlla lépp jaar na yoon. démb def nañ suñu couleur rouge laay yàlla seytaane xeeb dolli léegi nag coow li nag jeex na nag sama sëriñ damaa bëgg non non waaw lekk nañ ba suur naan nañ ba màndi oto su nañ ndax démb xam nga couleur blanc nga waxoon ma ne la blanc couleur de la paix la weer euh, euh, verte couleuru l'islam la ma ne la nañ def rouge moo nekk couleuru saytaane démb mhm. tubaarikàlla oto su nañ xale yi lekk nañ lekk gi doy na naan gi doy na tubaarikàlla macha allah léegi nag coow li nag jeex na ndax aadamoo tamit nag suñu xarit la comprendre nga. aadamoo mm. suñu xarit la bu ci benn seytaane pëtëxlu kenn ku bëgg bës xam ne ku fay ah dëkkam taw ba inondé mu bëgg cee dugg bu ci kenn pëtëxlu bës bi bu leen ci may kenn coow li jeex na ginnaaw ay jàmm eh. na jàmm dellu si Casamance Sénégal jëm kanam rek foofa toj loolu laa am ci lu ma doon wuri maa ngi ci liggéey bi ba wàcc. Serigne naan sa yow laay waxal de man du ma Kaliphone Sall mi ngay toog di ci live muy we muy muy naan di gëm di wax loo xam ne nii amul wala loo xam ne da koy déranger man laa la wax. ku woo ci Sénégalais yi ne leen minuit pile da ngay ñëw man Adama da nga may fekk si ndax xam nga ne li ma yor du leen kese far force da ngay ñëw ñëwuñu pour noonu dañuy ñëw parce que li ma yor dafa leer lii nii mi ngi may doog a dal Cheikh Ahmed. waaw parce que da nga ko sëkkutoon ak sa papa rek Ado ah, loolu la. <laughs> waaw lii bi may doog a dab. sa papa mais bu tax ma découragé wala ma bàyyi de. gars yi peut mhm. bul bàyyi jàppal Adamo jàmbaar nga. yaa ngi nekk wala continuer rek. maa ngi taxaw rek di la xaar. bul bàyyi de. Cheikh buy man dama bi day defar day defar sama sama bëñ bi tuuti mais wàccu ma de bu ko kii yéen maa ngi palewaat waxtaanal maa ngi waaw defet moo métti defaral bëñ bi après nga ñëwaat jërëjëf Dieng nu mu sant Dieng wala nan mbaaye sa doom ji nu mu sant Jeng Saala Waynde Saala. Jeng Saala na defar bëñ bi te ñëwaat. defet dafa ba fu ma taayee bàyyi Adamo. Ahmed Cissé nga kaawal xëy fanaan hôpital dama ragal nag premier tour bii ñu la dóor nga dem hôpital bu deuxième tour amee damay dangay dem bàmmeel Adamo ruslu Adamo ñalaw ma ba për set Adamo maa ngi nii xaw ma damaa indisposé xaw ma lu ma dal xaw ma damay set xaw yaram waa ngi naan ndox maa ngi génn deret jaa gi génn da baa gi génn lu nee ngi génn ñuux naa ci éponge ñuux naa ci matelas ñuux naa ci coton lu ne ñuux naa ko ci aadamoo aadamoo sa wax juree ji yëpp am si sa dugg nga mel ni xaru yar aadamoo di nga wax ba dugal sa bopp aadamoo di nga wax ba rey sa bopp aadamoo may ñu jàmm aadamoo la jël nit ñi aadamoo dimbali ñoo aadamoo ay aadamoo dimbali ñu Ahmed Cissé fii mu laal ne boo duggaatee ci moom fa lay laal ñun ñëpp dinañu feebar aadamoo rusal nit ñi aadamoo dimbali ñu ngir yàlla war a suuri nga bàyyi Ahmed Cissé mi Ahmed Cissé dalaa gën a muus te Ahmed Cissé dina la jaay àddina aadamoo bàyyi nit ñi may tàngeen man dooro jot naa ko téléphone na ma du dëgg nee na ma musulaa woo te woowu la téléphone te man maa ngeeg lépp mais du ma teg ay audio kilifa message yëpp maa ngi moom loolu du ko def dooro duma teg ay yëfam mais nee naa contacté wu la woowu la sama diggante ilimaan laam nag xam nga ni mu demee man tamit xam naa sa diggante yow ak Elimane Lam li ma xam sa diggante ak Elimane Lam kenn xamu ko Cheikh Ahmed Elimane daf la taxaw Cheikh Elimane ba nga duggee ci kaso bi daf la génnee wala ba nga ñëw waxtaan ak yow dugal la ci géemu politique nga nekk di ànd ak ma Sall man Elimane day toog ma toog ñuy waxtaan damay dem ba Paris mu toog ma toog mais yu bëri duma ko wax parce que sama nit la ba ma jotee yow daf ma woo ne ma génnal dee ma épargner. moom woo naa ko téléphone moo tax yow ilimaan moo la daan woo di ma woo boo dee woo a la dëgg la parce que moom sama nit la nee na ma nag sama digganteeg yow amul mbindeef bu ko a yàq amul du yow du Ahmed Cissé Adamo doo bàyyi turu Doro mbaaya mbaaya may waxtaan ngir yàlla mbaaya ñëwal mbaaya xaaral mbaaya après loolu mbaaya may loolu may leen ma ngir yàlla ngeen face to leen rek waaw kay du man bu ñu paree ngeen yéeg du yow Ahmed Cissé day xulloo di jëm ci yow man may xulloo moom muy xulloo di jëw ci yow ma lay woo di arranger pour problème yi baax man tamit may woo yow di arranger pour problème yi baax mais ni nga séq ak moom teraanga jàppal ne teraanga boo mës a séq ak moom rek séq naa ko ilimaan laam bu ko raw loolu mooy deuxième point bi deuxième point bi muy Farba Ngom Farba Ngom mustama woo di ma wax ay waxu Mia Guissé amul benn yoon mu woo dema ne ma Mia Guissé nangam ak nangam kon loolu jàpp naa ne tooñ la ak ay sos yoo xam ne danga koo jël teg ko ci deru Meya far ba nga mosumaa woo di ma yàqaloo Meya Guissé wala mu may woo di ma naan ma damay doxan Meya wala am na lu ma ci xam xaw ma ci loolu dara Farba kóllëre leen séq mu nekk nit ku baax nekk sama nit yaa ngi dégg Amadou Sall bi nga noonu nga naan danga koy woo dangay ngay dégg moom woogoo ko vocal ko nangam ñooñu ñëpp samay nit lan man sama ay xarit lan Ahmed Cissé dama bëgg nga xam ne loo xam ci état bi ba toog rek xam naa lu ko raw toog mais dafa am ñoo xamante si ni dama séq ak ñoom kóllëre yenn yi du ma ko def mais dafa am ñoo xam ne boo leen laalee damay jóg ndax dama xam seen jikko xam ne nu mel lii mooy lépp. léegi nag bu la neexee ma leeral la dara li ci njëkk yow yaa wax ne Ilimaan la mu ne moom ma génne ci kaso man ma ne dafay fenn du dëgg muy benn ñaareel ba musut ma dugal ci politique loolu c'est pas vrai si si sa wax laay tontu yow. ñetteel ba ca tegu ilimaan laam fajalut ma gàcce yoralu ma dépasse te yaakaaruma ko xaaruma ko ci dara lu mooy ne su mag la doon àndal ma bëgg ko te yàlla tax rek du dëgg maa ngi koy wax ci internet haut et fort pour mu leer musut maa jëriñ loo xam ne mënaluma ko suma bopp musuma ko yaakaar musuma ko xaar génnewut ma kaso bi ma fa nekke ba ni ma fa génnee déggantewuñ maa ngi ko gëj a dégg biñ ma joxee convocation kon wax ji leer li nga wax ne Elimane Lam la ko wax du dëgg te dina jot ci wax ji dina ko dégg moom xam na ne du dëgg beneen ba ca des mooy yow Adamo man su ma ndey suma baay bàyyi laay fonk ñoom lay ndamoo ku leen saaga ma looloo am fëgg sa dënn bi dem teg sa live saaga su ma ndey ngir Doro Gueye ak Wally Seck loolu nga wax dëgg la bi nga defee loolu li li fi ñu nii amoo ci ndam. waaw. yow ci sa game bi ngay piler sénégalais yi. Mm-hmm. di wuti ay information ti ci nit ñi. Mm-hmm. ci loolu laa la fekk si. dëgg la. nax la ci. Mm-hmm. mbaamal la ci. nga fere si sa xaalis. joxe nga ci cinquante mille. sa secret weeru sa audio yëpp ma jot ko te dew ma fen gis nga fausse information yi. no gis nga sa fausse information yooyu nga am ci man yu mel noonu nga daan am ci nit ñi mais mën na ma mën a tontoo mënuñ koo tontoo. Mm-hmm. nga jóge fa tey. waaw li Doro dégg ak lim ko war a yàqal ak lim ko yàqal danger boobu mesuré woo ko. Mm-hmm. mais nit nga koo xam ne koo ne da nga ànd ak moom du dëgg sa bopp la ñor. dëgg la ndax koo mës a bu défendre jotee sa bopp ngay tafu saam nit ki. te mm-hmm. Doro kilifa ni nga doon yuuxoo ne noonu nga ko bëgg a sàmmee su doon dëgg. Mm-hmm. doo dugg ci coow loo xam ne luy nàcc ci moom lay jóge dëgg la. Wally nag moom pour défendre ko. sa jëflanteeg moom leeral na lépp. jox nga ko kado dafay déggoo merci dafay li na waaye yara ko raw àndal ak yar rek ba tey déggoo ba déggoo merci ci waali nga takk jabar déggoo félicitation sa jabar ji fajar jot na daa bëgg a tëdd nga bakkaa bi fan yëpp tëddewoo ko moom la lay wooye la va ça va ay la va vous ça ay la daa may ko daa bëgg daa bëgg ñu may ko ci réegu bi ah.